li fi xew demb xew fi tay rek wane na dimension wane na dimension kat yalla moko jox nekul won dimension bu tok Tëngéej nekul won dimension bu tok ci Rufisque Ouest nekkul dimension bo xam dimension département bi la dimension sax yalla mo def mu dépassé woon euh, vraiment l'État sénégalais la nation sénégalaise donc li fi xew demb ak tay gëj naa xew ci nit ku génn aduna liko waral nak moy dafa ñax dafa xare pour euh, dëkkam dafa xare pour euh, Sénégalam Pape Bouba nag kuy wax ci moom danga naa man de gis naa ci ñoom ñaari aspect benn aspect di day mel ni ndox mu teey ndox mu ne tek comme comme ndoxu lakk comme ni ma ko waxee léegi ci tubaab benn aspect bi nag dafay jóg comme gaynde dafay jóg surgir comme volcan pour rek pour gagner loolu moo tax ci loolu ci noonu la ñu yàlla jaarale ñu am Euh, buts contre la France en 2002 ñun nag ci mairie bi jàpp nañ ne lépp lu ñu ko defal doyul mais ñu ngi ñaan état bi nga xam ne terrain bi mairie bi def na ci ba mu praticable état bi jàpp ñu ba terrain bi mën a nekk turu mën a jël turu Pape Bouba jóg leneen li xam te mairie bi décidé na ko tey jii ci réunion bu ñu ko taxalul woon dinañ am délibération boo xam ne day jël mbedd mi nga xam ne moo commencé rond point stade dem ba rond point na bi ñu duppee ko tuddee ko Pape Boubacar Diop.